asalaamaaleykum internet yu Yegle TV dal leen ak jàmm ci xibaaru guddi gi dañu koy door rek ki nga xam ni moom moo jiite parti bi di alliance pour la citoyenneté et le travail di ACT di Abdoul Mbaye tey jana nag taskatu xibaar yi di ñaawlu li nga xam ni noom la parrainage bi demee waaye tamit di ñaawlu li nga xam ne ki nga xam ni moom mooy jiitu conseil constitutionnel doxalee ci li ni mel ndax dafa wane dooleem li ni mel sax moom da mi ngi ñu xamal ne dina jël ay avocat ba décision bi nga xamni mom la conseil constitutionnel jël mu attaquer ko dañ ci tewlu ki nga xamni mom moy mooy Abdoulaye Timéra ci njàppale am di Moustapha Niang ñaxtu wala bagn procès verbaux yi nga xamantene bi dafa ñëw rek ci walu notification parrainage wu candidat wu Abdoul Mbaye bu loolu le président bu alliance pour la citoyenneté ak travail ACT di ñawlu bay joxoñ baramu touma euh, conseil constitutionnel bi. té nak ñu laaj la ko ci ñaari yoon. benn nga war ko def ca këyit beneen ba nga war ko def ci ordinateur ñu jàpp rek ne parrain yi nga xam ne Abdoul mbay indi na ko parrain yi nga xam ne euh, Issa Sall euh, indi na ko ak Mamadou Lamine Diallo ak Malick Gakou ku ne parrain boo indi rek feesal na stade Demba Diop stade de Léopold Sédar Senghor kon mbir mi yombul kon nag war nañu fay daal liggéey bi nga xam ne coono bi nga xam ne teg nañ ñu ko ci war a jëm bëgg a doon candidat. kii nekkoon Ilimanu Jawriñ bu Macky Sall nee na conseil constitutionnel dafa salfaañee lépp lu nga xamante ne bii dafa tënku ci chartu réew mi rawatina li nga xamante ne bii moom mooy doxalinu conseil constitutionnel. la conseil constitutionnel daanaka du ma waxati sax conseil constitutionnel. Pape Oumar président du conseil constitutionnel ni mbir mi a manam que bi nga war nañ ko parrainage mom moko bind biñ ko ba itam PV bi ci ñun signé conseil constitutionnel juróom-ñaari magistrat juge et Djurom ñaar conseil constitutionnel lu fa jógee juróom-ñaar kon Pape Oumar Saho, Nous avons d'abord damay rek li nga nous dispositif ba ak nu munta demee ki jité ACT mom fu mu ne ba la def ndax dafa fas euh, top li di conseil constitutionnel bu fu mu don ben ci salfagne bu muy def chartu rewmi mi lépp bu ñu sukkandikoo ci kaddo muy wane ne rek Sénégal dalu na gannaaw bu baax a baax ci wàllum démocratie. Karim Wade bàyyi na nationalité française bi nga xam ni moom la amoon li ni mel jébbal na bataaxal bu ñu sukkandikoo ci benn quotidien bi nekk fii ci Sénégal ñi nga xam ni ñooy autorité française yi de mi ngi leen di xamal ni li ni mel rek la ko taxaw jóg mooy mu bàyyi nationalité boobu ngir ñëw fii ci Sénégal ngir dagan baatu askan wi ndax nekk président ci 2019 dañ ci teewlu nettali Abdoulaye Timéra Karim Wad Tagone avec nationalité française qui um, dit candidat déclaré pour le Parti démocratique sénégalais ak qui ñoo ñoom um, fu dañoo taxaw ngir ci présidentielle bu février 2019 donte li nga xamante bi mom modi réseau inscription yi ci liste électorale yi ki di euh, Karim Wade euh, daal na bàyyi li nga xamante mom modi nationalité française am ngir mu bañ a ab galancor ci euh, candidature am bu ñu sukkandikoo ci ab yene kay fi ci Dakarou di rek ne candidat ou coalition Karim président atum 2019 bind na ñi nga xamante ne ñoy kilifa yu nguuru France ngir rek mu dal di len ñaan ñu dindi li nga mom modi nationalité française am boobule sukkandikoo ci ab loi sénégalaise euh, képp ku nga xamante ne bi ab kandidaa la da nga bëgg bokk ci jongante présidentielle yi sa nationalité sénégalais euh, donc képp la war a mën doon ba tey lii di yéenekaay bi di xamal ne rek euh, laaj boobu nga xamante ne bi mu ngi ko doon sàkku ci kilifa yu nguuru France daanaka antu na moo waral nag euh, ba léegi ci euh, xibaar yi nga xamante ne bi tukke ne ci wàllu woowu kii di doomu wadd daal di am li nga xamante moom moo di certificat de nationalité sénégalaise mu daal di ko boole ci dossier bi bu ko defee rek euh, mu mun a bokk ci jongante élection présidentielle yi ñuy dëgmal ci atum 2019 gi ci euh, conseil constitutionnel. mouvement gëm sa réew te nekk ca Touba Mbacké ñëw na dugg ci coalition aljanna mouvement bi nag benn mbëbët rek la mooy jàppale Thierno Lo ca dëkk bu tedd boobule ba mu am fa li nga xam ne moom la bëgg ci 24 février ñu falaat njiitu réew mi ci biir Touba Mbacké te jaare ko ci liggéey bi nga xam ne coalition aljanna mi ngi koy amal ci dëkk bu sell boobule dañ ciy teewlu reportage. beneen mouvement ñëw na dugg ci coalition aljanna. bi ni mel mooy gëm sa réew te féete ca Touba mosquée bu ñu sukkandiku ci ki koy xam le ni coalition ak Thierno Lo lu war ta ñàkk la. kon su ma demee ba tey may wax ndax man samay wax bariwut ci politique man liggéey gi laa gën a féete wu wàcc ci terrain bi wax ak nit ñi loolu laa gën a man ci wax. ba tax na bu ma demee ba wax rek sës naa tey nag dama sës ma ñëwoon ci Thierno Lo seet si ko siyaare ko baax di ko seet si bëgg nag mu jàppale ma bu baax a baax a baax parce que gis naa ne mu ngi liggéey ci baas bi ci coalition Ajjanaam bi mi ngi liggéey ci baas bi bu baax ci Touba. moom mi léegi mi ngi xam ne collaboration bi nga xam ni la am ak Thierno Lo dina am doole ca biir Touba. fas yéene nañu am ndam xam nga fi nekk nii ñun bu ñu góorgóorloo ba président amaat deuxième mandat bi ci la ñuy gën a mën a taxaw bu baax sax ñun suñ liggéey mais xam nga président di fàllu toujours. te Touba bokk ci loolu mooy li ma gën a naqari man loolu mooy li ma gën a naqari coalition àjjana bi ne jàpp naa ne ñun suñ ci góor góorgóorlu taf ci seen loom yi li ñu naqari woon dana saafaraw ci Touba. gëm sa réew ak coalition àjjana ñoom ñi le boole nañu seenub doole ndax leen rek tax leen a jóg falaat njiitu réew mi ci 2019. xibaaru bitim réew yi ñetti ponk la dinañu yóbbu ca Gambie ca gamo ak ca Nigéria. xibaaru bitim réew yi lee dañu koy doore ci Gàmbi commission bi nga xam ni moom la ñu teg ngir mu indi dëgg waaye tamit fexe ba jubboole ña nga xam ne ñoom ñooy doomu Gàmbi yi te Adama Barrow sàkkoon ko ñoom ñi le commencé nañu seeni audience ci altine bi ci Banjul kuréel gi nag lu ko tax a jóg mooy ñu enquête ci ñaawteef yi nga xam ne def nañ ko ak toroxale ñoon toroxal nit ñi ginnaaw ba Yaaya Jammeh nekkee foofu njiitub réew ca 1994 ba fin 2016 dañuy dem ba ca Gabon ab coup d'état bi nga xam ne tey ñenn ci soldats yi ñoom ñoo ko defan waaye dañoo jàpp ne dafa échoué ci altine gi ca Gabon te bu ñu fàttalikoo président bi nga xam ni moom mooy Ali Bongo mi ngi ca Maroc lu toll ci ñaari weer ak genwal ba nga xam ne dafa feebar lii nag mooy guuleet ci histoire Gabon benn groupe militaire di génn ci télévision nationale bi di waa askan wi ñu jug ñoom ñu la sax ca ba ñu nekkee ca télé ba ñu ngi leen di doon nañu waaj a taxawal lii di conseil national de restauration de la démocratie waaye ay waxtu rek lañ ci ca Gabon lépp dellu siwaat ci yoon bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moom mooy jëwriñ gu gàlloo lépp lu jëm ci communication te yore it kàddu gouvernement bi lee xibaaru bitim réew yi lee dañu koy jeexale ci Nigéria ginnaaw polémique bi nga xam ne am na fa ginnaaw ba ki nga xam ne mooy Mohamed Buhari Ftabbe kii di ab jarbaatam mu bokk ci commission électorale indépendante te élection yi nga xam ne dara desul fa lu toll ci juróom benn semaine rek li ni mel nga xam ne mooy mooy présidente nigérienne bu commission électorale indépendante moom mi ngi weddi tuuma yi nga xam ne opposition bi ñu ngi koy teg ndax xam na ni nomination Aminata Zakari bi ca biir institution ba mënul xajamal benn élection ca dëkk boobu leen yi moo nekkoon xibaaru bitim de football te mu door la 5 janvier ci dëkk boobule compétition bi nag dina dajale ay dëkk yi ñu mel ni ñi nga xam ne Arabie Saoudite Bahreïn ba ci Qatar waaye ñetti dëkk yi nga xam ne ñoom la ñu tudd ak Émirats arabes unis ñoom ñi lee dañoo nekk ci ay jafe-jafe yu mag maanaam crise diplomatique yi nga xam ne kenn xamul lu ko sooke waaye ñëpp jàpp ne ñu coupe d'Asie bi la boo moytu ci ay xët-xët rek lay mujj ndax ay fan yu néew rek match dina dox ci diggante Arabie Saoudite ak Qatar lu jëm ci organisation coupe d'Afrique des nations ci 2019 moom rek mu nekk dëkk bi nga xam ne moom moo fas yéene jàkkaarloog Égypte ngir recevoir coupe d'Afrique des nations ci weeru juin bi ñu jëgmal Afrique di Sud moom mi le xam le ne ni dina garantir lépp lu jëm ci logistique waaye ba ci nu foot bi di doxee ba ci tournoi bi du am benn jafe-jafe dëkk bi nga xam ne dañ leen tuddee nation arc-en-ciel ñoom ñi le xam nañu organisation bi bu baax ndax ci dernière minute sax lañu jëloon li ngir sauver yi nga xam ne ñoom ñooy Afrique ci Libye ba mu ko war a organiser ci 2013 waaye fi ñu toll fédération football bi ak gouvernement bu sud africain bi fi mu ne ñoom dañu jaaxle ci koppar yi nga xam ne la ñu war a duggal ci compétition yi ndax ñoom ñaari instance yëpp dañuy jàpp ni seenu koppar mënta matale li ni mel xibaaru tàggat yaram bi dañu koy jeexale ak joueur bi di El Hadji Diouf ak Samuel Eto'o ñoom ñi leen nga xam ne daje nañu tey fii ci Dakar ci li nga xam ni moom mooy CAF Awards waaye ñoom ñi leen jëpp dañu wane rek li nga xam ne moom moo leen métti jëm ci football africain bi lii moo tax ñoom ñi le ñu ne faaw ñu organiser waat football africain ngir mu mën a nekk football bu ñoŋ football bu gën ñëpp bëgg ñoom ñi le sax ñaawlu nañu li nga xam ne moom mooy corruption bu ñu nemmeeku fii ci Afrique jaarale ko ci football ñoom ñaari footballeurs yii le dañoo bëgg xar kanamu football Afrique soppi lii moo nekkoon seen xibaaru tàggat yaram yi le ci xibaaru tàggat yaram yi lii la ñu yëkkatee suñu jotaay xibaar di leen jox di daje suba incha allah ci yeneen programme way leen dañu safoo ñu leen di sagoo jaa ngeen jëf